gannaaw bu ñu sante sunu borom tabaraka wa taala julli ci sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallama ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare ci bis bu màgg bi nga xam ne mooy sangu bisi di leen ci ndokkeel di ñaan yàlla lépp lu ci def ci aw yiw yàlla ko yàlla ful te may nu nu yàgg koo teewe ajjuma yu bare bare bare bare itam ànd xéewal ak mucc ak jàmm waxtaanu tey bi incha allahu taala ñu ngi ko fas yéene jëmale ci tomb bu am solo bi nga xam ne moo dëdmal jullit ñëpp seen xel nekk ci muy siyaara ji beytullahi alxaram moom lañ fa yéene waxtaane waaye bala ca egg rek ñu ñaan yàlla jàmm ci réew mi ndax jàmm ci la lépp xaj wolof neena na yitte bu dee yaar jàmm daa am ba noppi waaye bu jàmm amut jeneen yitte du am fekk jàmm amut kon ñu ñaan sunu borom tabaaraka wa taala mi yor jàmm mu defal na ko ci réew mi ba mboolem yooyu ñuy wax yépp muy jàmm yàlla yaag jëf yu baax yi ci des yëpp ngir mu mën a sotti ci biir jàmm lay sotte am na ñoo xam ne taluñu ko taluñoo aji màkk taluñoo def leneen ci jàmm yàlla ndax dañoo amut jàmm boo amut jàmm moom doo tal dara te réew mi nag ku ne xam na ni soxla na jàmm lool fi ñu toll ndax yitte yu bari gàllankooru na liggéey yu bari gàllankooru na nit ñi dem ak dikk jafe na leen lool ñii faju jeeg ñii def yeneen yitte yu bare bare mënuñoo fex ba déplacé fañ nekk kon nag lépp luy andi jàmm ci réew mi loola mboolem ku ci am kàddu war nga cee wax ku am ñaan itam war nga cee ñaan ngir yàlla defal nu jàmm ba réew mi mën a dellu ci ak dal gi nga xam ne moom la ñëpp soxla xam ngeen ni. jamono yiñ toll buñ ci tollee xel yépp day dem ci jaamu yàlla gu màgg màgg muy hajju baytillaahi alxaraam mooy jéem a aji néegub yàlla bu màgg boobu nga xam ne ponk la ci ponk lislaam yi ñu bari ñu cay waaj a dem war am ay yóbbal ci wet yu bare bare bare yoo xam ne dañ ko mën a yóbbuloo ci seen wàllu diine seen wàllu yaram seen wàllu am-am te yëpp lu ci ne dañ caa soxla yóbbal boo xam ne dana leen mën a gunge ci tukki boobu nga xam ne moom la ñuy a def. aj màkk nag xëy na duñu guddal ci ponk yaag euh, yañ cey war a def ndax yooya euh, ku dem ñaare da nga fekk ñu la gindi ñu la giide teg la ci yoon ba nga xam na koy defee. ñaare itam juum ca du yomb ndax loo xam ne yaag ñëpp koy defandoo ay junni junni nit ñëpp dem bala fa di def nangam nga tëdd yow loola itam yombut kon moo tax dara faat la ji dara faat la ji itam lu ja lu jafe la waaye nag am na ay sew-sew yoo xam ne euh, képp koo xam ne am nga yéene yi war a aji war nga koo mën a bàyyi xel bu baax a baax a baax bokk na ci ndénkaan yooyu nga xam ne lislaam dana ko dénkaane ci këpp koo xam ne am ak jaamu yàlla am du nangu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ni inna allaha tayibun laa yaqbalu sunu boroom ku teey la ku sell la koo xam ne du nongu lu dul lu sell kon nag boo bëggee la ngay def nangu da ngay fexe ba la koy laytaay muy alal ji tax nga man ko moom itam mu sell bu ci benn dërëm dugg boo xam ne bu sellut la beneen ba ci topp mooy yow mi am yéene aji màkka rikk na nga ko def rek te jublu ci jëmmi sunu borom tabaaraka wa taala ak fas yéene jëfe ndigalam li nga xam ne moom la wàcce ci bépp jaam bu ko man bu la yàlla dimbalee ba nga man ko wala ñu manal la ko kon def nga bu ci jublu dara weesu jëmmi suñu boroom bu ci jublu yokk ay sur bu ci jublu du ma seen moroom bu ci jublu mën naa lu ngeen mënut wala joti naa fu ngeen jotiwut yooyu yëpp bokk ci jubloo rek sa tuyaaba yàlla rek xam danga ko amam déet te coono bay dana bari kon jublul ci aj gi am jëmmi sunu borom tabaaraka wa taala ak jëfe ndigalam euh, beneen ba ci topp mooy xam ngeen ni euh, dañu euh, dañuy wax ni a taxliyatu xabla taxliya maanaam ndab loo bëgg def dara te bëgg la nga ciy def nga jëriñoo ko da nga koy setal ba mu set nga soog caa def la ngay la nga ci bëgg a def waaye boo fobee ndab lu taq def ci saw ñam doo ko jariñoo moo tax ki bëgg aji nga xam ne day séentu yërmande yàlla ak njëggalam ak faroog bakkaar ba mu set wicc ba mel ne ba muy door a ñëw jamono kooku itam war naa waajal loole ci tuub gu sell ci mboolem ñaawteef yi ak bakkaar yi nga xam ne ak rëcc-rëcc yi nga xam ne dal defoon na ko mu buddi ku ci te fas yéene dootu ci dellu mukk laabal xolam lu mu man dana tax ba e, njëggalug yàlla googu ak mayam yooyu bu ñëwee ci moom dana am fu mu dugg e, ba mën ko jariñoo kon bala ngaa def ci ndab li raxas ko ba mu set mooy bala ngaa tàllal yàlla ay loxo di ko ñaan day fekk yow ci sa bopp nga tuub tuub bu sell soog a tàllal nag bu ko defee bu yàlla ñëwee ak i e, lam lay sotti bu boobaa bu la ko sottee da nga ko mën a jëriñoo Euh, beneen ba ci toppitam mooy nit ki war naa waajal boppam bu baax psychologiquement ci wàllu xam ne ab tukki la jëm boo xam ne bu bari coono la bu bari jafe-jafe la dëgg la jamono toll na foo xam ne man nañ ni coono aj bu doon junni ci gannaaw léegi dem na ba téeméeri ci des wala téeméer bi sax manqué na kon wàññi nañ ci lu baree baree baree bari waaye du tee rek mu des dara ba tey ndax sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne asafaru qitaatun min al tukki aw dog it la ci mbugal kon nit ki war naa préparer boppam ba nga xam ne lépp loo xam ne rot na ci wàllu dundiinam ci ak coppiku ak nam daan doxale nam daan lekke nam daan tëddee nam daan lu ne lam ko daan defee dana am changement yu ci dugg yoo xam ne yooyee na ko bàyyi xel te xam ne mënut a ñàkk ndax tukki moo mel noonu da gis koo xam ne bu. nekkee ci aj lu yëngu rek mu defee ne dañ ko doyee dal dañ ko fonkut commission bi da ko jàppale wut ah, dañ ko toppatoo wut ndax kon du demee nii fekk booba daa préparé wut boppam ci waajal ni ay coono ñoo koy xaar bu xamoon coono yi koy xaar ni mu toll boobaa lu mu am ca nooflaay rek da ko war a bett waaye nag boo ñëwee boo boo jógee te jàpp ni lépp daa war a nooy nepp rek boobaa loo daje lu mu néew néew rek da ngay jàpp ni dañ laa yab ak dañ laa toppatoo wut fekk demewut noona dañ laa waroon a préparer waajal la ba nga xam ne yow sa lépp coono ngay xaar suntu séntuwoo fenn noflaay bu ko defee loo am ci noflaay rek da lay bett day rëy ci yow kon loolu itam ki war a dem màkk na ko bàyyi xel bu baax mu xam ne ay coono yu baree bari moo nekk ci kanamam lu mu am ci noflaay rek na ko sant yàlla waaye bokkut ca mbir ma euh, beneen bi ci topp mooy xam ngeen ni kuy aji lislaam daf koy dénk mu fay ay borom yam ca mën a fay ya ya nga xam ne mënu koo fay wala seenub digg jotagut yooye na tàggu seeni borom bañ yëg ni moom mii kat day aji ndax aji ah ku dem ku ne da ngaa ñaan del si waaye yàlla rek xam yàlla rek xam ñu toog seen kippaar di naan seen kafe sax wóorut danañ jógam déet jëlal naa nag aj ak la ci nekk ci ay danse yëpp eh, kon ku cay dem eh, war ngaa bàyyi xel bu baax say bor fay ca ya nga man ya nga fay yëpp tam nga tàggu seeni borom noonu la ko lislaam bëggee waaye itam rafetal tàggu say dëkkandoo ak say am di jàmm ñi nga xam ne ñoom nga ko séqal euh, beneen ba ci topp itam mooy ci biir aj gi na nga fexe ba wattandiku lépp luy xeetoog ak neen ak i caaxaan ak waxtaan yoo xam ne du la yokkutu la yaaba waaye sax mën naa wàññi sax sa tuyaaba far muy waxtaan ca yëpp waxtaan rek boo xam ne doo ci jëlee tuyaaba loola na nga ko wattandi ko bu baax a baax te jéem a sonal sa bopp bu baax nag ci mboolem xeeti topp yàlla yi ak jaamu ko ndax aj day occasion boo xam ne ah boo ko amee bay ba fonk ko bu baax a baax ndax nit ki mën na koo am benn yoon ci dundam du ko amaat nit ki mën na koo amit di ko amaat mi ngi aju ci ni ko yàlla dogale rek waaye nag ginnaaw wóoru la ci ban la benn bi nga jot a daal fexeel ba. lam laaj ci farlu ak taxawaay ak yitte eh, nga jox ko ko ba mat sëkk beneen ba ci toppit mooy xam ngeen ni barab la boo xam ne ñu bari danañ fa soxla ndimbal ci xeeti ndimbal yépp nag muy ndimbal ci wàllu xam-xam muy ndimbal ci wàllu alal muy ndimbal ci wàllu doole lu mu ca doon ci yooyu ka nga xam ne yaa ko ca tane mu soxla ndimbal ku ci ko xam-xam am na lu mu bëgg def te xamul ni ñu koy defee nga tane ko ci dimbale ko ko ndax dana dana yokk su tuyaaba lool ka soxla ndimbal ci wàllu am-amam lam yoroon jiyaax wala ñu sàcc ko mbaamu réer kooka itam loo ko mën nga dimbalee ko ko moom itam ki soxla ndimbal ci wàllu doole dafa dem ba mënut a dem mu soxla ko ko lëng mbaa ko jàppale mbaa ko yëkkati kooka itam loo ca man boo ko tanee bu ko xeeb ndax lu baax kenn du ci xeeb dara. ndax sallallahu alayhi wa sallam nee na woon na ngeen di wattandiku sawara doon ci xaritu tàndarma la xaritu tàndarma mën naa fegal nit sawara kon jëf ju baax lu mu doon rek bu ko xeeb jàpp ni amul njariñ ak lii du dara déedéet defal rek yàlla moom moo xam lam cay nangu te lu mu ca nangu lu mu tuuti tuuti rek euh, euh, mu jariñ la euh, beneen ba ci topp mooy nit ki war def ci xelam ni marxala bi muy dëtmal maanaam état bi muy dëtmal ci ak dundam bu jógee ci aj gi war naa mën a wuute nag ak yeneen étape yi nga xam ne ñoo jàlloon maanaam kii aji ba ñëw war naa amee comportement boo xam ne dañuy xam ne lii aj gi moo ko def ci moom ci yar ci lislaame ci maandute ci jàpp boppam ci mën a muñ ci wet yu bëree bari ci leçon yoo xam ne dana ko jànge foofu incha allah danañ ci ñëw ci kanam yooye bu ñëwee war naa mën a feeñ ci moom ba nga xam ne ku ko gis dana xam ne kii ah, diw mi de xanaa moom daa sensé man de kii béyuma ko woon nii fekk booba daa demoon màkk ba ñëw te xam la ko aj jariñ loolaa tax nga gis ci changement bu mel noonu ci eh, wàllu jikko yu rafet yooyu nga xam ne moom la làmboo te ameewu ko woon waaye dem màkk ba ñëw mel ne ba nga ci gut wala sax nga gën a doy waar loola gis nañ ko fi waaye lu lu ñàkk solo la lu tal ne aji ku ko def boo ñëwee war naa am comportement yoo amee yoo xam ne dañuy xam ne lii aji moo la ko pikir moo la wàll lii moo tax nga mel nii waaye ba nga demagut meloo ni woon loola kon diggante ñaari étape yooyu nit ki war na ko bàyyi xel moo xam ne bu ñëwee lu bari ci lu mu sañoon ak lu mu daan def ak nu mu daan waxee ak mu daan doxale loola war naa changer comportement bu baax a baax a baax eh, ba dëppale ko ak ni nga xam ne noonu la ko l'islam bëggee loolu Euh, lenn la ci ndénkaan yi nga xam ne euh, lislaam dana ko dénk képp koo xam ne yaa ngi euh, waaj ngir aji baytullahi alxaram waaye itam mbokk yi xam ngeen ni am mbooloo fépp fu ñuy daje bokkuñu ay comportement bokkuñu ay jikko bokkuñu ay naanuwaay bokkuñu lu bare bari loola am na lu mu laaj loo xam ne ci ay wàllu orientation yoo xam ne nit ki war na koo mën a jëfandikoo ngir mën a nekk ci biir mbooloo moom nga xam ne ci la jëm tukki bu mel noonu itam ku ci ku koy waaj war naa may orientation yoo xam ne euh, mën nañ la koo dénk ngir nga mën koo yóbbuloo mën koo jariñoo bu baax a baax a baax mbokk mi nga xam ne yow yaa waaj ngir dem Makka na nga bàyyi xel ni ay nit ngay nekkal ay xaq war seet sa digg ñoom nga war a sàmmonte lu bare bare bare bari danañ la dénk ah, jéle fii ay bagage yu bari di lang la moom moo di la sonal foo jëm ah, di ko ŋàbbu loola ab coono la te amul njëriñ kuy dem nang nga ko wattandiku bu baax a baax a baax ah, beneen bi ci topp mooy yéen yi nga xam ne ñeena war a dem léeg nga gis nit am ci jafe-jafe yu méttee métti fop ay bagaasam yu mu fonk lool fekk walis ba mu war a dugal ci avion ba dugg na ba dem léegi saak amee dong la dese mu ñëw nag ñu yulli saak amee bi fekk ci lu baree bare loo xam ne dañ ko may mu dugg ci avion bi mu jaaxle mënatut dem ci walis wale te bii moom du ci dugg bu ko defee léegi ni koy def sànni ko mu ñàkk ko loola mat naa xam bu baax a baax a baax lépp luy xeetoog ay parfum ak i pâte dentifrice ak nangam ak nangam bagage yooyu na ngeen ko wattandiku du dugg ci seen saak amee bi ngeen di yor ci seen loxo. sa walis wa ngay dugal ci biir avion ba ca suuf nag loola mën nga dugal loo ci bëgg dugal loolu lu mat a xam la ndax nit ñi dañ ci am jafe-jafe yu méttee métti ndeysaan da nga ci dajeeg nit yërëm ko lool ñu wàccal ko loo xam ne bagage yu cher lay doon parfum yu cher wala yeneen yu cher yoo xam ne duñ nangu mu ànd ak moom ci biir avion bi te mënatu koo dugal ci walis wa ndax peese na ko ba mu dem ba pare kon yooyu mat na bàyyi xel bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen a war a tukki euh, bi ci des mooy ñu bëree bari bu ñu agsee madinatul munawwara seen eh, xaalis bi ñu yor bari ci ñoom njënd mi ak njaay mi rafet lool te neex lu ñu yor rek ñu xallas ko foofa ba nga xam ne bu ñuy dem Makka daanaka dootuñ dese dara bu ñu demee nag nekk ci ay jafe-jafe ku ne ñu ab leb la ku ne ñu àbb la ku ne ñun la dooma dimbale ci nangam fekk lañu yoroon dañ koo teel a jënd ay bagages. loolu bari na ñuy gaar kon bus boo eggee ca mun a munawwara sakkanalal sa mablax bi nga yor maanaam sa som bi nga yor war ko aje te xam ne aj gi des na lu bëree bëri tàmbaleegoo da ngaa nekk ci barab boo xam ne ay siyaar rek a fi nekk état bu madina lépp ay siyaar la waaye lenn lu bokk ci aj màkk nekkut foofu lu weesu armal gi ngay armal daal di génn madina te boo koy def rek dañuy daal di génn dëkk bi loola kon mat nay bàyyi xel boo nekkee ci état bu siyaar nag li la tax a jóg jëm a ba noppi la la yoroon lépp nga sànq ko léeg dana indi jafe-jafe yu bare bare bare ci ujaa ji egg si Madina rek njaay mi rafet neex nga jënd jënd jënd ba say walis fees waxuma la diis ga muy diis ak ba muy ba cee nekk waaye yow dootoo dese sax loo euh, loo aje te aj gaa ci kanam des na mën naa am ñaar fukki fan wala weer ci kanam woo war a nekkaat loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax euh, beneen ba ci topp lu mel ne sunu mbokki jigéen ñi nga xam ne dañuy def ay fudde nag yu demee noonu machine yi xew léegi xam nga boo ñëwee da ngay teg say loxo mu jël say empreinte yu mel noonu danañ ci am ay jafe-jafe ndax boo defee ay fudde nag xeet yooyu da ngay ñëw machine bi du du gis baaraam bi te bu ko gisut doo jàll loolu itam kon jafe-jafe la ñu xam ne aj moom ah, wax dëgg yàlla nag di su ko waajal ci ay ay ay toilette ak yu demee noonu ñu koy waajal ci xol bu sell ak tuub waaye kenn du waajal nag ci. ay tudd nag yeneen yu demee noonu mbokki jigéen yi ñu bàyyi ko xel bu baax a baax te xam ne mën na leen indil jafe-jafe ci aéroport yi te naar yi xam ngeen ñu compliqué compliqué lañ li xew fii dimbale maag may maag ak yooyu ñoom xamuñu yooyu moom da ngay jaar ci yoon wi rek jàll boo ko boo ko wàccee ñu indil la jafe-jafe kon yooyu nañ koy bàyyi xel bu baax a baax euh, beneen bi ci topp mooy yow mi nga xam ne euh, yaa yaay ujaaj bi ci dëkk bi ñëwoo fi ñëwaat fi ba xam fi lu bari Ah, eh, ñu bari dañuy faral di réer ci biir dëkk bi lu koy waral mooy génn hôtel bi dootoo xamati fooy jaar ba duggaat fa mbedd yi nuroo na tabax yi nuroo na te ñi ngay dajeel ma naam doo ci xam ñu bari amut kenn koo naan dama ni mu ni ah dana néew lool kon booy génn bats bi nga xam ne moom lañ la jox nga xam ne assance bi nga bi la indi moom la la defaral bats boobu dee ko fonk lool rawatina booy génn wala carte bi nga xam ne moom lala la hôtel bi di jox dana tax boo réeree ba xamatoo fooy jëm ah, boobaa koo taseel rek boo ko tàllalee dana la mën a dana la mën a gindi sa réer dootu metti waaye réer boo xam ne amoo menn mandarga mu ñu lay mën a xamee xamuñ foo dëkk te li ngay wax kenn xamu ko loola mën naa andi jafe-jafe ci ab ujaaj nañu koy wattandiku bu baax a baax ñu baal ma nag tey tey moom aj gi dama cee waxee noo xam ne bokkut ak ñëw naan farata yi lii la ak sunna yi lii la ak mustahabaat yi yooyu dafa am ñoo xam ne ñoo ko fare woo boo demee foofa ñoo la koy ñoo la koy leeral waaye yii de yoo xam ne nag ki war a dem te demagut moom moo ko war a moo ko moo ko moo ko mën a jariñoo beneen bi ci topp mooy dangay gis koo xam ne néeg ba mu nekk nit ñi dañuy sonn lool bu guddee ñu tëdd ñenn ñi di noppalu ngir bëgg bu fajaree ñu mën a jóg julli ji mu yorub téléphone am wala yorub tablette am ma ngay whatsapp ma ngay vocal ma ngay lu ne ma ngi ciy dugg nit ñi kenn du nelaw écran yi di tàkk. Euh, mu metti lool ci ñi nga xam ne ñoom la bokkal néeg bi loolu itam xam ngeen ni mbokk yi lu mat a bàyyi xel la boo nekkee ci aj ñëpp sonn yendoo coono ba guddi ñu war a nelaw war a dallu war a jugaat fajar ah, wax dëgg yàlla nag boo bëggee wokaal wala ngay wooteeg sa waa kër loola la ca baax mooy nga génn ba ci olo hôtel ba wala nga génn ba ci mbedd ma nga def la ngay def waaye jaaxaan ci sab lal di woote rek di wokaal kenn du nelaw ah loola itam xam ngeen ne àq ju rëy rëy la te xam ngeen ne màkka ah, wax dëgg yàlla nooflaay bu bëriwut nooflaay bu bëriwut kon diggante si nit ki di am ñetti waxtu ñeent yi muy mën a noppalu loolu itam euh, bu ko ca euh, xatal dafa mel ne ñu ngi waaja a nodd allah